Kia ora. They just want you to name. Kia ora. Kia ora. They just want us to wow. Kia ora. Kia ora. Father, you can be done. The message is about the money. But I just want to

salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yow dina service islam asalaamaaleykum wa rahmatullah di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo xarit suma wëlëre suma doomu day imaam Maguette Seck di ko teg ci loxo sunu waajur sunu papa Baye Mbaye Ndiaye di ko ziar bu baax a baax di ko nuyu moom njabootam di ko teg ci loxo responsable politique bi nga xam ne mi ngi ci tàngu lébu di jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxo Assane Dia di ko nuyu kàddu loxo bu baax a baax. di remercier responsable politique yi nga xam ne ba campagne bi tàmbalee ba léegi ba mu dooragul ba léegi ñu ngi ànd ak ci liggéey bi di leen taxawu bu baax a baax. bëgguma lim ndax su du ma matal waaye du ma juum sax waaye dama dul wax Assane.

wax ko fii wax naa ko sànq ci rajo bi ak ci Gossas Info musuma seede lu ñaaw wala lu bon ci suñu frère Mohamed Dionne te du tey laa koy tàmbali waaye je suis avec le candidat Amadou Ba moom laa yuti ay électeurs c'est mon avis waaye seen problème du loolu li ñuy jéem a jaxase mënuñu ci am résultat Donc, ils ont fait un choix qui n'était pas le bon choix. La preuve, moi, depuis deux mois, je l'internet Internet de mon ay kàngam yu mag a nga xam ne ba a ñëw yëglu woon nañu bi ñuy dem kenn publicité soxna Vous responsable régional dañ jotoon 2024 fii ci Diourbel rejoindre na Amadou Ba ndax ñu ngi doon nekk fii. Abdou Diouf léegi laa doon lii ci benn dépêche bu mu def mu wax Sénégalais yi dëgg la réew mi démocratie la waaye Diomaye mii mun na def dara am kàcce. borom kàddu yëpp xam nañu léegi ca Touba ba ñuy def seen meeting Mbacké.

ñetti fan la lay may boo génnoon mu fekk ci la ñu seet la ngay dox bëgg la ci li nga soxla waaye dëkk bi yow bëgg la ci sa jikko la ñun xamoon nañ ne bu defee ñetti minutes rek def ko jàngee def ko jàngee bu yemoon ci seen bale sax ñu xam ne kii gëmul yàlla bale la gëm bale la yaakaar ne moom bale ñu ne waaw waaye lii def ko jàngee saa yu ubbee gémmiñ rek def ko jàngee affaire yi nag buñ ci jëm dellu gannaaw wees ci dimanche des na juum aussi doomu aadama bu ko defee war na koo nangu képp ku jàppoon ne lii projet bu baax la pour Sénégal découvrir ne lii projet bu baax c'est un projet bi nga xamante ne day xeex li nga xamante ne ni moo def suñu fondement suñu ciment muy fii ci Sénégal dama mos a tukki benn réew bu jullit bi nga xam ne ñu ngi reyante rek li leen dimbali mooy tarixa yi ngeen am ak sëriñ baax am jàmm ji ñu am ñun xam nañ li ñu ko may te képp ku ñu ko bëgg xañ dañuy taxaw jàkkaarloo man musuma wax lu ñaaw ci nii waaye ku may wutal dama lay wutal ak fulla ak fay du ma sos du ma sof yokk président Macky bi may gañee mairie bi ngeen ànd kook man yéena ma ko jox mais waxoon naa leen bu yàgg dëkk bi du ko dugal ci opposition ndax bu ma ko ci dugalee dëkk bi du leer dëkk bi du set commune bu ni ñi mun cee jël lu ëpp cent personnes feera bokk ci mbir yi moo tax ñu defal bonjour bonsoir ñu jox la courant jox la ndox léegi léegi dinaa jaari paxa kaw lamp ya nga leer nañ gone yaa ngi ci bi góor fofu lay toll sandi sa bët ba sax ci nga koy gis gis nga ku baña gis lu ñu def fii ci dëkk boy mo gën sa bët gaay yi kat li ñuy bañ li ñuy bañ moy adama moy borom dëkk bi nee borom dëkk bi waaye baax leen dëkk bi loolu la ñuy bañ comme nag loolu la ñuy bañ koo fi rombati rek bàyyi leen

Je suis fier d'être le Et je l'assume entièrement. Parce dans la vie, pour développer une localité, il y a deux choses qu'il faut essayer de respecter. C'est le principe de l'identité. Si tu as le complexe de l'identité à un vote tu ne pourras pas apporter ton apport dans la construction de cette cité. Je suis toi, je l'assume. partout dans le monde ak fu ma def ci àdduna waaye nag comme gars yi moom borom dëkk bi la ñuy bañ bu ñu mooy lu topp chaque jour rek ba wax leen borom topp bàyyi naa nuyoo nit ci mille cent douze fois bàyyi naa sax di leen baalu ak mille cent douze fois ajuster fee na bàyyi loolu léegi day wax rek borom dëkk bi borom titre foncier bi ñooñu comme la ñuy bañ ay borom titre foncier bi ay borom dëkk bi léegi nag bu dimanche

ñu ngi woon di wax booy yi sàcc leen ko tey li ngeen yor mu gën a fort mu gën a doon or mooy seen carte kon nag ku tey ci fulla ak fayda su ngeen yeewoo ngeen dem voté yi ñun dinañ jël disposition yëpp au niveau lu ñaar fukki oto ak juróom-ñaar dañ dugal ci biir carte mag bu ci bu ngeen gis mu wax ñoo woteel wax la ko ñu dañ ko jël si yóbbu ku ngeen gis mu ñëw jël te ngeen xam ne woteel feneen lan léegi bu mu dugal moom manager yi nekk ci vote membre yi nekk ci bureau vote responsable yi nekk autour des bureau vote samedi dinañ ñoo auto yi ñi am yépp dinañ def argument ku nekk dina affecté ci benn kon pour nga dimbal ni d'accord lañu nekk daal di tàng na xam dinañ ñëw wote si jam, dellu si jàmm balay midi ñu ne Amadou Ba gagné na département de Dakar man war naa département bi yépp suba laay jeexal muy partage waaye li ma dégg dañuy gagné dañu bu méttee métti lañ leen diggante wulli buñ leen mosoon a wulli bii mooy gën a métti amul tiit amul ragal gis nga li ma leen gêné seen affaire la parce que dans ce département de Gossas y a des gens qui ont le complexe de l'excellence y a des gens qui ont complexe de la réussite ils ne veulent pas boo réussir benn yoon ñaari yoon ñu ne nañ ko galgal bu mu egg troisième fois yaay kan yaay yàlla bay joxe li am solo mooy ba ñu yoree département ba léegi yore nañ ko ci yërmaal yore nañ ko ci déglu askan wi dëgg yore nañ ko ci dundal diine jox yore nañ ko ci koom-koom démb rek maa ngi rencontré jakartamaan yi ñu ne bi nga faloo ba léegi amul benn fitna musuñoo gis jakartamaan yi di dàqante bay dem di dugg ci quartier yi finalu Moussa Koyate bi ñu doon def fii ba ñu tojee oto préfet ñu jël fii ñeenti jeunes yóbbu leen police gendarme fa yóbbu leen Fatick ñi fiy toog di statut naan libéré libere kenn di génne aussi 1000 francs pour libérer xale yi man maa defar auto préfet 362 000 ñu doog a bàyyi xale commune bi naan libéré libéré libéré. sunu rakk ji nga xam ne ñu koy wax laay poobar ba mu amee problème ñu ko fitnaaloon ba ñu ko arrêté kenn new yóbbulu ko reer fati man maa jox baaba cuun baaba fanaan ak moom foofu jox ko reer waxtaan ak yi bañ ko libéré maa dox samay tànk dem ba ci ministre ministre yëkkati un million jox ko ma ko jàmm gën ay waaye ñi doon wax libéré libéré kenn fekk ko Fatick kenn jox ko ministre xam nga nekk di wax wala di profito ci ay jafe-jafe doomu aadama pour nga ci jéem a wut tur amul benn njëriñ être auprès de la jeunesse de Gossas ce n'est pas profiter de leur malheur ou de ce qui leur mooy nga anticiper ba loolu sax bu ci am wala bu amee nga dox ci ba ñu am satisfaction fii kenn mënu ñoom lu baax Moussa Koyaté ba ñu arrêté xale yi dafa dox diggante fii ak Fatick yëpp teg seen bët ba muy jógee foofu di ñëw dañu ne Moussa vient avec les jeunes waaye ñu doon statut yëpp libéré ki gisoo ñu sant ko sax gërëm ko ci waaye yàlla moom gëmul nelawul fii lu fi am ci njaboot gi ñun danañ continuer dinañ taxaw bu doon ku may saaga subaam ngoon sax su ma déggee am nga jafe-jafe naa la dimbali waxantuma laa ku ma bàyyi xel wala ki nga xam ne lu ma tàng nga jàppale ma ci ñoom mun nañu wootee ni wax na wuy si lañu ba pare ñun bu ñu wootee su ñu nit ñu wuy si ñu ñuy wax lu nekk dinañu xas te genn wàll ñuy bind ci internet bi dañuy bind ñii ñuy saaga ñoo leen gën a jàng fuuf man gis naa fi kuy bind ci turu jonn 2024 Assane Dia moo gën a jàng Assane Dia am na maîtrise

xalay UCS xalay parti yeup ma ngi leen di remercier tay fi ñepp fa fi dajé gis nga li fi nek doon bu wote won ñu wulli leen bala ñu dee waxatuma laa nag da tok ci kër ga di ñu déglu mo gëna ci suñu nguur gi ñu yar dëkk bi mo gëna dal xel ci kilifa diiné mo gëna dal xel ci kilifa aada mo gëna dal xel ci mat yi mo gëna dal xel ci xal and na ak yërmande and na ak lu nek may remercier troisième âge bi daalaa ñu njaga njaay dirigé wax dëgg yàlla bàyyi nañu xel ci population yi lu xew bale kenn di jiitu ñoom ñoo fay jiitu te système boobu bañ ko mettre en place ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale askan te loolu mooy ak maire maire boo dëgëralul ay tànkam du mun a yóbbu ak indi la ñoo ngi indi nag ku mu doon wërsëgam mu ñëw ci yow nga remercier am na ñi nga xam ne nag boo leen joxee ba pare ñu ne woon politique wut lii laa ci doon wut am naa toog naa waaye ku mel ne Assane Dia da bu xëyee suba gën a tàbbali wala Cheikh badia kon nak ñun on est conscient man sama xel dal na Cheikh badia sama yakar yokul fu nek nit ñi ñu ngi babbeeku di ñew di wuy Amadou Ba du ko saas fii léegi man nak talal na ñepp lox talal na ñepp lox li xew xam nañ ko réellement candidature dafa am ay candidature yu valable ak candidature yu valable lo wax man candidat la té amul fenn fo dem amul fenn foo taxaw ba pare nga ne candidat la nooy gagné ñi jóge ci APR yëpp kenn du ci bokk ci cinq premiers yi Amadou Ba day jël cinquante et un pour cent ñu ci des séddoo li ci des te ñoom du ñu bokk sax cinq premiers parce que nit ñi yeewu nañu comprendre nañ ñi doon yor projet xam nañu léegi projet bi lan la kon Assane li fi des bëriwul waaye guddik tey ba dimanche ci suba continuer leen duggale ci kër yëpp suba nag la ñuy def suñu dernière activité muy benn conférence religieuse bi nga xam ne ba ñuy fixé date bi foogoon nañ ne élection bi le vingt cinq février ñu koy def ci biir koor gi te at bu nekk ñu koy def te Gusaaswaay yëpp seede ko xam nga ñu koy def quartier kër Alaaji Malick Sy ñu fas yéene teral ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lislaam bi muy sëriñ si muy ndongo daara yi muy imam yi muy jullit yëpp ñu bokk ak ñoom ci koor gi ñu ñaan yàlla war ci jàmm wari ci jàmm suñu bokk catholique yi ñi ngi woor te egg nañ ci ñoom ba pare jàppale leen ñoom pour yàlla def aussi seen koor seen koor jàmm bu ma santee jeunes yëpp ñëpp a ngi ci biir waaye damay sepp lingeer yi remercier leen

maag yow ñoo bokk bàyyi bi may wut lii ba fi dara sama papa dama maa wax demal seeti sa papa kobol bu la nee defal nga def bu la nee tegal suuf nga teg suuf ba ma ñëwee papa kobol ne ma non seulement dama lay wax na nga def waaye Assane mii na arrêté njàngam topp sa ginnaaw loo xam nga mu bokk lii taxaw di la wax xamuñu ne man li ma la jox tuuti na ci li ma la yéene ndax man ak yow ba ñuy tàmbali sa ngone gépp ci samay loxo nga ko def mais nag bàyyi xel ci li la Cheikh wax dafa am ñaari mbir yi nga xam ne du continuer ci doomu aadama mooy jeune ak étudiant kooku période la étudiant la da ñaan yàlla nekk fonctionnaire jeune la dangay ngay ñaan yàlla nekk adulte wala ak ya fekk la fa njatt la nga avancé kon préparel les Ada Boys préparel réserve préparel les guerres ba nga xamante ne nii bu nu fi jógee

ay jeune lañu ak le comité d'organisation taw li bari na ci département bi waye man amaguma benn problème alhamdulilah fi nak def nañu lu nek jaaga neena dañu dañoo toj rajax waju maa yakarna patar lañu la toj rajax su sunu frère jibi cham la fekk suba ak auto yu bare bare suru parel donc fee li bu ñu li ñi def ba pare ba julli takko san dañuy départ wutali patar meeting bu mag lañ fay def meeting de clôture su ma demee dinaa tàllal loxo ña fa nekk yëpp rawatina suñu frère Samba Diouf danañ ko tàllal loxo parce que moom quand même war na mën a ñëw jàppale ñu parce que bu fekkoonte ne coalition bi mu jiitee mi ngi dox wala boog am na tànk kanam dinañ ko wax waaye day xam nañ ne ci mouvance présidentielle bi la bokk xam nañ ne il assume le bilan du président Macky Sall parce que ñoo ngi déglu seen i campagne li ci gën a bëri tali ba ñu bëmax bi la yóbbu ko ba ba pataalu kon loolu dañu ñëw man ni may sante Mohamed don ci tali bi Mohamed Dionne loolu la koy sante président Macky Sall ndax nag moom mooy nangu lépp bu nangul woon lépp dara du sotti dañ góorgóorlu bañ a indi ay problème parce que amul lu dul jeex ci nguur bu dul jeex ci bu yàlla subhanahu wa taala ab saat nag bu ca yërëm desee saaku ba jeex na saaku Macky jeex na saaku gars yi saaku Amadou Ba mooy taxaw bu dimanche bii di ñëw mu nekk cinquième président de la République du Sénégal ñu ànd ak moom posé ko les problèmes du département de Gossas de la commune de Gossas mu jàppale ci ci fulla ak fayda ñu développé suñu commune asalaamaaleykum wa rahmatulah